Notre plus grand plaisir est de vous servir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Géougui, l'émission qui est au de toutes les générations sur Side TV. Comme d'habitude, comme nous le à chaque fois, Géougui les lañ si waxtaanee moo xam people société politique waaye xam ngeen temps yi actualité muy politique moi, je suis lay gën a et c'est comme d'habitude avec le grand journaliste Omar Diao OSD. d'accord merci euh, Mamadou Sen, ñu les lay ziare di la jox sa wàccuwaay di jox wàccuwaay képp pour ñuy seetaan si à travers euh, nos plateformes muy wasaare news point com muy wasaare news ak yeneen plateforme digitale yi ah, di leen nuyu ne leen géew gi nag euh, ñëwaat na géew gi mooy émission bi nga xam ne wax dëgg neex yàlla léegi rendez-vous le fii si biir kër yi dañ si waxtaanee lépp muy euh, actualité bi yëpp muy comme ni nga people culture ak lamb lépp lañ siy waxtaanee tey nak comme ni nga dafa am loo xam ne dafa marqué instant bi sénégalais ñu ngi koy dund en ce moment muy élection yi nga xam ne génn nañ si muy élection législative yi waaw loolu la ñuy waxtaanee tey jii nii li si tukkee mooy résultat yi ak puccaxoo yeeg lépp si biir sans transition lañuy dem daal di xuus directement ñëw si wàllu actualité mu xam ne wàllu politique le 31 dimanche bi passé mu tombé 31 juillet le Sénégal doon amal lii di élection législative yi mu doonoon loo xam ne lu am solo la parce que mooy nekk loo xam ne ñoo ñuy représenté fële seen ndaw réew mi foofu sa ndaw ndaw réew je crois. pencum euh, ndaw réew yi pencum ndaw réew mi voilà. Euh, ñoo xam ñoy fi représenter donc ñom ñoy wara voter loi yek euh togo tim di askan bi seen jafé jafé tim ñu mën ko wax euh, ñii di xam ne ñoom suñu njit pour ñu ko pour ñu mën ci gis suñu bop ñu bu baax baax. gëna ba lolu amé nag ciow li commencé wona a bëri bari ciow li commencé wona a parce que journée bi à partir de 18h manam li résultat yi commencé wona a génn ñëpp jàpp dire ni di bi commencé jël ndam di dafa confirmation parce que tamit minute mu tendance commencé changé bu baax a baax waa bokk yaakaar gannaaw bi muy turee génnee ne moom tamit ñoom jël di ndam Omar je pense que rendez-vous bi rendez-vous politique dimanche mhm. euh, comme ni ko Sénégal di Sénégal euh, pays démocrate lañ euh, 13e euh, bi mo jall ñu dugg 14 e c'est-à-dire yag y def élection. Mhm. té élection yi jaar na ci yoon ni nit euh, ñëpp génn nañ participer à élection yi moy ndaw mak ñëpp participer à élection mu nekk ndam pas tout le monde hein, comme d'habitude. pas tout le monde mais xam après midi bi gars yi gën à midi wala à 13h ñu donnons wax 22 20 préfet ñu ko wax. Mais à partir du, soir, il y a une 30, 35, 40 euh, le taux de participation. Mon école, amna solo Comme euh, fi may yow résultat résultat officiel amagul. Mhm. Lepp provisoire là Provisoire donc biñ ko commencé di lim xam nga rek télé bu commencé. bastion Madame, Matam euh, bastion bi nga xam Macky Sall dafa am lool lool lool lool euh, fi nga le sud Ousmane Sonko dafa am euh, ñii dañu commencé euh, si sud bi ñi commencé si nord bi manam nord bi moy Fouta Saint-Louis jëm kaw ñee commencé si sud bi moy mooy euh, Ziguinchor Kolda Sédhiou ak li jëm si kaw. waaw loolu peut-être instant bi ñu wax ki mo gagner ki mo gagner mais les tendances lourdes nak doko noter bu baaxa baaxa baaxa a baax a côté opposition bi lay jëmee moy oppo du ma opposition moy l'intercoalition Yewwi ak Wallu parce que les grandes villes les centres urbains nga xam ne foofu mu ëpp agglomération ay nit nit ñi fa la ñu ëpp euh, fa la ñu gën à chaque fois da ngay gis ne kii di opposition bi moko ko. gagné waaw mais tendance dafa mel ni commencé waa na changé bu baax baax gannaaw tey gannaaw ba mi mu tuddee génnee démb timmu daal di génnaat dafa mel ni bu ñu xoolee yu bari yo xamné ne média bi timit ñum koy génnee euh ñu jox favori moy fu mu toll nii mooy di wa Benno Bokk yaaka waaw waaw loolu sax mu ñu ko confirmer parce que euh, mbour bi gaay doon xëccoo léegi euh, dem na si côté benn bokk yaakaar. même que Louga. Louga bi gars yi doon xëccoo dem na si côté benn bokk yaakaar même Kaolack euh, département de Kaolack dem na si côté benn bokk yaakaar affaire boobu noonu mën na changer tendance yi parce que Kaolack euh, am nañ am nañ am nañ doole lool si pouvoir si si si politique bi. mooy si nombre de députés yi Louga am na am na doole Mbour am na doole. léegi nag ak ak li waxoon la dernière fois doo ko boole peut-être dina am tuuti décalage entre Yewwi ak. est-ce que nekkul ñuy wooyee comme comme ni ko wooyee le football de remontada fu mu toll nii. remontada non li may wax rek élection législative beaucoup ak élection présidentielle d'élections ak élection locale. Mm-hmm. élection législative dafa am euh, couleur Madame, dafa am euh, neneen ni ñu koy un mën nombre de départements bi la gënal par exemple nga am 50 départements, 40 départements, te département yi amuñu a ay deux députés nga fay am benn député par exemple tey jii mën doo jëlee Dakar ah Dakar bi yëpp région bi 18 députés la nga jël Thiès Thiès 5 euh, députés la xaw ma 6 ah, nga jël euh, Touba Touba bi yëpp 5 députés am na fa mooy Mbacké mhm.

waaw waaw waaw parce que instant bi nii ñoom bi ñu defee seen calcul ñoom dépassé nañ les 50 voilà mooy benn bokk yaakaar. Mhm. mais tamit euh, opposition bi ñu defee seen calcul ñoom dépassé nañ les 50 mais 50 du ma ne mooy cent douze majoritaires yi ñoom dépassé nañ les 50 mhm. doo ñëwee nag si proportionnel bi mooy 53 trois députés yoo xam ne ñoom war nañ ko séddoo. Mhm. foofu la foofu la différence peut-être di amee. mais mais c'est c'est c'est quoi le but bu fekkee ni maanaam tey jii nii ñoom amuñu droit joxe maanaam lii résultat yi c'est quoi le but tey jii nii waaye yow askan bi génn naan ñoom ñoo gagné. mais c'est très normal yaakaar c'est très normal parce que tey jii nii euh, les résultats yooyu nekkul résultat officiel mais bureau de vote bu nekk moo génn résultat am affiché ko à partir de résultats yooyu non yow loolu ngay jéem a calculer yow ñaata nga am. am nga si am nga si plein droit lol sa droit lol loolu kenn du la ko bañal. mais amul droit joxe résultat résultats tamit. non résultats yi résultats provisoires la. Mhm. ku nekk mun nga jël say résultats provisoires boo xam ne yaa ko amal sa bopp. Mhm. nga calculer si génne def def déduction ne ma gagné légui nak euh li li li wër moy commission départementale yëpp dañuy bolé sen euh sen ki num mu euh sen nombre nombre de votants ak ñi voté euh parti bu ne ñu bolé ko ñom nak génné résultat ba nga xamné ñom mom moom jappé officiel légui nak tribunal de Dakar ñom ñoy génné résultat yo xamné ken kenn dootu ko lam lam lam laame moy résultat officiel yi nga xamné moy kan mo gagné entre ñom mhm. mais ñom amna ci droit mais doo xoolee nu mu demee nii moom du ma ne Benno du ma ne mais les tendances moom tendance yi doo ko xoolee en tant que observateur di nga gis ne Yewwi askan bi am nañ euh, am nañ am nañ devance bu bëri bëri Benno Bokk Yaakaar. mais est-ce que tey jii nekkul mbetteel bu ñu gisee Sénégal li ñu doon wax avant avant avant les élections ñu bëri jàppoon ne ñi waa Benno Bokk Yaakaar peut-être. Euh, Sénégalais yi dañ leen weddi wala Sénégalais yi amatuñ si ñoom confi amatuñ si ñoom confiance mais dafa mel ni fu mu toll nii ba léegi Macky Sall euh, fu mu nekkoon ba léegi moom ngi fa tey jii buñ gisoo yeewu askan bi ak ñu mu wër ñëpp Ousmane Sonko fa Sall ñu boole si waa wàllu Sénégal Abdoulaye Wade ñëw ba léegi daf mel ni Macky Sall moo ngi leen tenir en ce que jàppoon fu mu toll nii Macky Sall ba léegi moo ko am. man moom mënumaa ne mag Sall am na doole amul doole mais li population bi euh, wane si élection yi ñaari élection yi. Mm-hmm. doo jàngatee ñaari élection yi mooy euh, niveau de popularité bu président Macky président Macky Sall mu ngi wàcc bu baax a baax a baax. ndax doo jëlee élection locale yi moom mu ngi doon ut Dakar. ak hmm. yenn yenn yenn yenn. mais ah. Dakar mosu ko gagné c'est normal. waaw Dakar mosu ko gagné mais bokkoon na si objectif am pour gagné ko si élection locale yi du ko gagné wul rek loolu échec la parce que moom li mu fa investir. non loolu échec loo mosul gagné boo ko gagné wul nekkul échec. mais échec mooy maanaam loo xam ne daangoo nga daangoo nga ko gagné à chaque fois nga di ko perdre loolu mooy échec. non non maanaam tey jii nii man mosu par exemple man mun naa jël exemple sama bopp mosuma mosuma par exemple ma ne mosuma génn Dakar. musuma génn ma koy bëgg di ko bëgg du bëgg chaque année ma koy tenté du ma duma ma génnul la du échec chaque année chaque année du ma génnul Dakar nii dem fi ma bëgg a dem loolu échec la cest à moom dafa bëggoon gagné si jàngat si sama jàngat chaque jour ma bëgg dem Saint-Louis chaque année ma jël objectif ne ren moom damay dem Saint-Louis demuma Saint-Louis loolu sama échec la man dama ko bëgg bëgg naa ko def bëgg naa dem def si moyens yëpp dew ma loolu échec la maanaam moom bëgg na Dakar bëgg na gagné Dakar mënul gagné Dakar échec la

maanaam nit ki chaque année maanaam par exemple sa personne da nga nan man am objectif temps dama bëgg atteindre sama objectif chaque année do atteindre objectif yo nga tek sa bop loolu échec la ci sa ci sa personne jàppoon ni ñii di suma ñëw ci euh, Macky Sall peut-être xamna do da ko fo mais hmm. waaye yow askan bi tamit mun nga jàpp ni tamit ñoom tamit échec parce que c'est coow lu reuy di rek coow coow rëy yaakaar ni à partir de 19 h dañ tàggal ko ki di président Macky Sall surtout timit Ousmane Sonko bo xamné à chaque fois bu démon full ni ko don top yëpp mu melni ñu bëri nax nañ ko tamit wala ñu bëri dafa jàpp ne peut-être mythe la woon rek ku bëgg maanaam nga dem Saint-Louis amuñu woon habitude di gis Ousmane Sonko à chaque fois. ñu <laughs> gis ko moo tax Ousmane dem tey jii nii euh, ba yaakaar moom door ju mu amoon ndekk si ko. non Ousmane Ousmane askan bi en général la philosophie et l'idéologie ba nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi koy prôné en ce moment nii la.

ne duñu ñu mënul gagné Sonko maanaam du ñu mënul gagné euh, kii di président Macky Sall cohabitation dañ la ñuy bëgg mais cohabitation boobu lool mo indi problème bi en ce moment. mais cohabitation instant mo mënatul né non non instant yii mun na né mun na ne mënatul né légui dañuy déglu ki li nga xamné mom moy commission départementale. mais si jàngat si lo gis à chaque fois di yow suba tel di ko gis di top information yi xam ngeen fu mu toll li di cohabitation bi doon wax mënatul nekk c'est impossible fu mu toll. non non non non c'est pas encore impossible tant que commission départementale bi nga xamné mom mo habilité joxe résultat officiel yi génnul ne ñii ñoo gagné ñi ñoo gagné ba légui mënu mënu mënuñoo mënu mënuñoo tirer conclusion mais tendance yi nga xamné yow yang koy gis yang koy dégg depuis par exemple euh, deux jours mhm. yow yaa ngi dégg ne euh, Ousmane Sonko mo gagné yenn euh, Yewwi Askan Wi l'intercoalition ñoo gagné yenn yenn yenn yenn yenn yenn dëkk yi yenn dëkk yi am doolé muy ay Dakar muy ay Thiès muy ay euh, benn parti Kaolack bi benn parti euh, Sédhiou nga xam ne Sédhiou sax mosuñu xoon gagné. Mhm. Sédhiou opposition mosul gagné Sédhiou législatif ñoom gagné nañ Sédhiou. Mhm. ay gagné Saraya gagné ay dëkk yoo xam ne tey jii nii euh, doo ko boolee ñoom doo boolee li nga am nga boolee proportionnel bi mun na leen yóbbu fu sori duñ boolee ñoom ñaar seen doole. Mhm. chaque jour dañuy chaque jour loolu la Sénégalais di def amalgame yi wàllu ak yeewi ñoo bokk. kenn du jël yeewi à part kenn du jël wàllu à part parce que intercoalition la. amul lenn loo xam ne lu juridique loo xam ne mooy wane ni yeewu askan bi ak wàllu comme ñoo bokk benn mais ci seen euh, calcul ñoom calcul bi ñuy def dañuy boole euh, yeewi ak wàllu doo boole yeewi ak wàllu kay ak seen résultat yu ñu jot am nga xaar yi waaj a génn di nga xam ne même du fekkee sax mënuñoo am majorité mais cohabitation c'est probable mënoo génne cohabitation fu mu toll nii. mu mën nañoo bañ a gagné mooy bañ a gagné mooy majorité mais mën nañoo am dëkkandoo dëkkandoo mooy par exemple ñu tolloo la maa ngi yow kër gi ñu tolloo la nit noonu la demee. mu doon loo xam lu am solo bu ñu fa jógee dañuy dem fële oto daal di dem fële sa Saint-Louis wax nga ko sànq euh, tendance moom foofu moom leer naa ni non Saint-Louis ba kii di Mansour Faye sax génn moom daal di félicité ñii di opposition bi donc mu doon loo xam ne euh, luy rafet la comme ni koy waxee Sénégal démocratie ni yi dund euh, maanaam ba léegi coow yi moo bëri nii rek mais ku nekk yaa ngi maanaam amal seen jàmm mu nekk la nga xam ne mbir ba nga xam ne sénégalais yi bëri rafetlu nañ ko muy Galo Ba félicité li nga xam ne moom mooy baala euh, Bara Dolly Cheikh Bara Dolly euh, Victorine Ndeye euh, félicité li nga xam ne moom mooy Guy Marius Sagna fële gis nañ Amadou félicité li nga xam ne moom mooy Bara sànq rek dafa mel ne laa koy gis ci internet bi mhm. loolu mu nekk la nga xam ne sénégalais yi rafetlu nañ ko bu baax a baax a baax a baax la nga xam ne avancement la ci sunu démocratie Mansour fay nag kaawam dafa xaw a exceptionnel xam nañ ni Euh, Mary Teuw Niane dafa bàyyi ba dernier moment Mary Teuw ñëpp xam euh, poids lourd la euh, Saint-Louis ñoom ñaar ñu amoon ay divergences d'opinion divergence politique ba mujjanteel gi kii di nu mu tudd joxe joxe joxe ordre. ne leen <laughs> leen li nga ne si si si à la fin. xam nga euh, tey jii Mary Teuw Niane lu ñu mënti wax Mary wu Niane moo ko gën a ñoox si bopp moo ko gën a xam politique moo ko gën a yàgg si politique tamit kii di man su Faye mën na mënoon na mënoon na négocier négocier négocier ba kii di Mary wu Niane bañ a génn li nga xam ne moom mooy benn Bokk Yaakaar parce que du doon arrangement am instant bii nag euh, day obligé toppaat si ginnaaw Mary Teuw Niane parce que Mary Teuw Niane dafa am solo lool lool lool si électorat fële ca Saint-Louis moo waxuma moom moo moom moom moo mais bokk na si ñu xam nañu Mbaye mi fa Abba Mbaye tamit nit ku ràññeeku la foofu noonu si wàllum politique. Mhm. élection locale yi moo deuxième. gis nga ni ko def foofu euh, nu mu def noonu euh, ki nga xam ne moom mooy ah génn na félicité li nga xam ne moom mooy euh, opposition bi ñu jàpp ne noonu lay demee après si si du commission départementale yi génnee ne gagné Benno Bokk yaaka félicité bu tamit commission bi dafa lañ gagné.

te pourtant Mansour Faye da ko duma duma yu metti est-ce euh, nekkul leneen loo xam ne. peut-être mooy yan élection élection locale yi. moom moo génn moom mooy waaw mais Mansour Faye moo génn gagnant. moom laa lay wax. Ah. kon kon est mun nga jàpp ne peut-être moom moo tax Mansour Faye daal di perdre parce que ça fait dix ans ngi à chaque fois élection yu ñu dem lii di Mansour Faye mooy gagné. waaw mais Mary Ñaan bi élection locale yi benn bokk yaakaar la bokkoon. mu ngi doon mu ngi doon soutenir waaw mu ngi doon soutenir ki nga xam ne moom mooy. man soutenir non non mais pas soutenir direct soutenir mais indirectement mu ngi ko doon soutenir. non indirectement sax mu ko soutenir parce que moom dafa bokkoon ci candidat yoo xam ne ñu doon wut maire de saint donc c'est impossible. waaw bokk nekk candidat ne waaw xam nga xam nga xam nga tey jii nii euh, nu mu tudd kii c'est parallèle yi moo indoon fi problème bu bëri. moo indi woon Kolda problème indi Dakar problème ak Mambay Niang mais terewul Macky Sall dafa ne moom limul nag yenn liste parallèle moo ko permettre man dama doon jàpp ne liste Mary Teuw moo ko permettre bi Saint-Louis. lu mënul ñàkk la ñaari ñaari kuy mënuñoo bokk euh, mbalka. peut-être moom moo moom moo ko defee noonu. mais élection locale yooyu nag kii moo gagné Mansour fay moo gagné au la mais élection législative yi Mansour fay dafa jaar à côté complètement mën nañoo jàpp ne kon Mary Teuw Niane moom moo moom moo ko moom moo ko déstabilisé. fa laay waxee quoi. ñu gis beneen fête tamit euh, boo xam ne dañuy génn maanaam di réew mi extérieur à chaque fois qu'il est président de la République il y a un doon gagné mais a un complètement pour y la non je pense que l'extérieur euh, la diaspora depuis Ousmane Sonko euh, commencé tweet c'est Facebook yi. Mhm. extérieur ñoo doon a a suivre doo ko bu baax. extérieur doon may doole sax instant bi sax na ñi nga ba Macky doon wax ne ay ay kii ay force occulte ay ñi nga xam ne kenn xamu leen est-ce que ñoom seen xa yaa ngi fàttaliku. bi ñu bi ñu réunir xaw ma 45 ah, millions. si waaw si benn jour. xam nga maanaam diaspora bi mooy euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a euh, xam Sénégal ñoom temps bi ñuy jël di seetaan Sénégal. yow doo ko seetaan parce que yow da naan yaa ngi biir Sénégal Sénégal intéressé wala da ngay seetaan l'extérieur mais ñoom dañuy nekk bi dañuy nekk à bi di xam li xew biir Sénégal ba pare ku doon yónnee 100000 ah famem

xam nga dernièrement rek gis nga. mu dem bi mu demee. mais c'est normal képp ku ñëw. Californie yow Californie ya ngi gis euh, bi mu bi passé Paris. mais yow un homme en tant que. le cas oh. de Californie mu na mun bu féké affaire loolu rek comme ni nga ko jiñee di euh, Macky Sall mu ne ko jiñee kii di Sonko parce que. Sonko non non Sonko nekul président attends rek. Sonko du président Sonko bu nekul président. mo moo ah. wut pour nek président. day wut rek mais nekul président. mais ba légui waaw ah. Sonko fu mu am ñu ko xamné japp nek mom président parce que Sonko ni ko ni ko comme ni ko waxé sànq ñu top Macky Sall nombre de personnes yu topp Macky Sall nombre de personnes ñu top topp Ousmane Sonko té moom hmm. ngi bëgg nekk di président te ah. ay ndaw yu bëri si moom lañ yaakaar ah. donc tey jii moom tamit moo ngi def même promotion kii kii di Macky Sall bu muy def parce que moo ngi ànd ak kii Assane Diouf ñoom ñaar Assane Diouf ñëpp si ay saaga lañ ko xamee boo ñu indee Sénégal saaga affaire de saaga bu ñu ko xamee biir Sénégal toog si sa téléphone di saaga si Assane Diouf rek la ko Sénégal donc le cas de Californie moom non xamoo le moment le moment moment bi ngay expliquer parce que sëñ Ba Dolly dafa ne dafa def dafa def benn benn wax dafa wax benn wax bu man peut-être dama ko jàppee loo xam ne da ko wax nii rek mu jàpp ko tëj ko si kaso bi comprendre nga si même moment boobu mu demaat Paris ki ko doon saaga ndey Marème Faye sax moo ko reconnaître si vidéo yi. Mm-hmm. yow yaa ma doon saaga ndey yow dégg nga ko. Mm-hmm. Marème fay moo ko reconnaître. mais nit ki tamit mën na saaga ndey mën na saaga ndey xamul woon mais bu mu xamee après mu daal di. maanaam maanaam maanaam institution la. ab ab non non eh, maanaam nit ki. maanaam tey jii Macky Sall institution la yow sa do ko saagoon tey jii fi fii nii man ma insisté génne ko dañ lay japp si. parce que mais mais ma waxee baal su ma su ma non baal xam institution do ko do ko doo nekul mom nekkul moom moo lay baal. moom moo lay baal non non. non Sénégal nek Macky non non non maanaam maanaam Macky Sall ko saagee directement. ay ay manam ñi nga xamne ñom ñoy garder li nga xamne mom moy intégrité morale mom physique. ñom ñooy changé wu jàpp la tej la ci kasso bi. ah c'est juste une ben ben parenthèse bu ñu doon dem. jàpp nga ne peut-être bassesse boobu nga wax comme ni ko tuddee yaa ko ah. tudd man sax tudd. non bassesse la bassesse la kay parce que yow imagine Kaliphone un homme ba nga xam ne tey jii nii moom da doon taxaw directement di moom du day tudd du wax sa président Macky Sall dugal si vidéo yi da ngay gis muy saaga Macky Sall directement di saaga ki nga xam ne moom mooy ma Faye directement. dernièrement vidéo yaa ngi fi fees fidèle en tant que le président de la république de tous les sénégalais ñëpp bëgg interview moom Sénégal fi yow yow est-ce que mos na dégg Macky Sall woo na benn benn benn ay à part lim doon def te dernièrement defu ko sax 4 avril bi passé mu toog woo ay seen ne leen kaa leen interview ma gars yi dañ koy sàkku sàkku ba Babacar Babacar kii. de même que Ousmane Sonko. waaw Babacar kii nu mu tudd Babacar Fall de même que de même que Ousmane Sonko. Ah, Ousmane Sonko sax dernièrement defoon na sorti Walfadjri Babacar Fall. non c'est pas la même chose def sorti Walfadjri boo xam ne da nga toog yaay tànn say journalistes. non question yi ngeen question yi ngeen may posé. mais moo tax question yi ngeen may posé nga ne nga ne. mais mais mais nu mu munti demee daal Macky Sall sénégalais yëpp. ñoo ko soxla sénégalais yépp la war a jox importance nekkul comme ay Ousmane Sonko Ousmane Sonko chef de parti la yorul benn nombal tànk ba nga xam ne sénégalais dañ ko ciy reconnaître nekkul président président de l'ensemble nekkul dara mais Macky Sall tey jii nii du ko sénégalais soxla maanaam média Sénégal Babacar Fall yoo xam nga ni ku ñu jox cër la ci wàllum journalisme Sénégal gis nga chronique bu mu def attaqué ko ne ko lu tax moom mu dem ba Paris en tant que un chef jël Khalifa Sall bi nga xam ne représenté wul dara Sénégal représenté wul dara si wàllum journalisme ak communication amul benn communication bu mu def bu mu jàng wala bi mu def mu recevoir ko toog ak moom di waxtaan ak moom nii nii nii nii c'est pas quelque chose ba nga xam ne dañ koy dañ koy dañ koy saluer mhm. ñun ñi nga xam ne ay professionnel média média bi lañ bokk loolu mooy premier bassesse mhm. man loolu laa jàppee bassesse te fii ba moom du toogoon sax dama naan ko président de la république interpellé ko si loolu mu xool mu war mu jox ma raison ya nga xam ne moo tax mu invité ki nga xam ne mooy Kaliphone yow gis nga Kaliphone ba démb rek démb bi Mimi Touré pare bërkaat démb bi Mimi Touré pare gars yi dañu ko attaqué waa benn bokk yaakaar vidéo yaa ngi fi feesal man maa ngi vidéo bi gars yi dañu ko attaqué ne ko yow yaa doon saaga Macky Sall yow yaa ñu um si direct bi mu doon def

Euh, magistère bi ñu génn mooy treizième législature bi dafa bëri ay ay ay problème ay problème viol avec Sonko problème Bougazelli Fobie ak euh, Mamadou Sall ak ak euh, Boubacar Biaye mm-hmm. problème trafic de trafic de kii ak affaire de go ak affaire de góor jigéen gis nga ay xaw ma kii affaire góor jigéen yi mm-hmm. gis nga woo foofu noonu ak vote de loi moo tax Sénégal ak gis nga tamit gars yi ñuy def dañuy jël seen dañuy jël seen seen seen seen seen oto yi wala seen xaalis jox ko seen doom Dakar di def la eh, man da ngay dox di gis des fois député laissez passer da nga koy te doo si fekk député bi te à chaque fois da nga koy gis mu lay romb c'est-à-dire maanaam dañoo dem ba amatul suñu ñu li leen comprendre député député li ko ne day représenter gox rôle député député mooy ki nga ne si gox bi mu dëkk lañ ko falee toog maanaam di ko yóbbu Assemblée national Assemblée nationale nag rôle am mooy lan di euh, wax fa Macky di ko dégg à partir de de ses ministres. ministre yi ñu jéem a xool lan la ñuy euh, régler tawatu askan bi amuñu amuñu loolu. moo tax population bi xaw a réticent si vote bi xaw a toog seen kër mais gis nañu euh, après midi bi jeunes yi génn nañ bu baax. Assemblée nationale est-ce jàpp Sénégal jàpp jàppuñ fu mu toll nii ne.

douzième législature la bokkoon. dañ ko dañ ko dàq bii passé bokkul sax si liste mooy 2017. dañ ko dàq moom dafa ñëw jënd këram yóbbu ay doom Amérique ñii Italie ñii France yow oto oto oto bi ñu ko joxoon daaw 2017 ba léegi wéyeeg moom te da war a delloo te liggéeyul dara bañ na bañ bi ñu defee investiture 2017 Macky Sall da kaa dàq complètement député Macky Sall la woon mais koñ bi mu dëkk à part Talikaro bi mu bi mu ne moo ko fa def te Talikaro bi bokkul woon bokkul woon si kii projet mag kii la woon. Euh, plan décennal bi. mooy pour lutter contre les inondations. amul lenn lu mu fa def. Hmm. maanaam député daal man li ma ko xamee mooy ki nga xam ne moom mooy toog ak askanam xam li askanam di dund. mu koy jël di ko yóbbu euh, ensemble parce que gis nga gis nga élection yi chaque dëkk dafa am député. du leen neexee ñu def national mais de national benn mais dañoo def départemental. def national. waaw national mooy moo lay permettre ñi nekk ay. ay taata gi nag ay kutaal ak ay yeneen dëkk yi <laughs> mun a mun a mun a mun a ñëw si assemblée <laughs> waaw xam nga xam nga xam nga député bu dëkk biir kutaal waa kutaal fal ko <laughs> xam ko kooku dina xam waa kutaal lu ñuy dund wala député bu nekk biir paal mhm. waa paal xam ko waa paal mun nañ ko fal mhm. mu dem mais député daal man jàpp naa ni peut-être xam naa Euh, quatorzième législative bi dina changé quoi bii di ñëw nii nii nii nii. dina changé ñu bëri itam jàpp ne lii quatorze législative bi moo gën moo gën. mais nag mais nag quatorzième législative bi man li ma jaaxal dëgg dëgg dëgg. mooy suppléant Sonko yi kenn xamagu leen man looloo ma xaw a tiital te instant bàyyi dégg de loolu moom dama ko dégg c'est-à-dire am na ñu nekk palais en en ce moment di xaar gars yi toog rek pour ñu corrompre leen te kenn xamul di man daal Omar Sy laa si xam. mooy petit frère euh, kii bi Habib Sy. Habib Sy ñeneen ñi xawuma si kenn. te te euh, ni ko gars yi di di interpellé euh, Yewwi Askan Wi nañ nañ leen nañ maanaam ñoom nañ ñëw toog ci conférence de presse yi nit ñi gis seen kanam ràññee leen xam ñooy kan ba ëllëg bi ñu demee ci côté euh, président de la république wala côté Benno Bokk Yaakaar ñu mën a xam kii mooy kan kii mooy kan mais kenn xamu leen. loolu loolu ni dañ koy ñaawlu trop. <laughs> waaw mu doon loo xam ne lu am solo li leen doon tey jii nag waaye balaa saa ñu bàyyi rek nga tàggatoo peut-être lu ñu may. waaw di tàggatoo tàggatoo askan bi di ah, leen wax ne di leen jox ah, dig daje ba beneen yoon si beneen ah, débat si beneen ay information yi nag à chaque fois nii lay demee géew gi lépp la ñuy waxtaanee people sport lamb lépp lépp lépp la ñuy di leen wax ngeen continuer di ñu suivre si suñu plateforme yi wasaare news ak wasaare news point com ak yeneen wasaare yi ngeen abonné bu baax a baax a baax nag di C'est tout ça c'était un ah. plaisir de avec c'était un grand plaisir de avec Omar le grand journaliste OSD hmm. <laughs> pas <laughs> Ah. C'était tout. Merci beaucoup d'avoir tout votre temps de nous suivre. Maintenant, il est temps de donner du temps aux autres paradigmes. En attendant, mangez beaucoup de bananes. Bye bye. Ciao.